dina desuwaat yéen di waxtaan ak yéen ci chronique point sn sinon par youtube chronique tv di jégalu nag ci diir bi ñu toog yëpp di déglu leen bi fekkoon na xat-xatu àddina yi xew ci diggante moo ko waraloon tey nag man Ablaye Ndiaye mu ñu waxtaan ak yéen ci thème bu xaw a diis thème boo xam ni c'est un problème de société actuellement on peut dire et puis dañu seetlu aussi que di cëpp Sénégal lépp la mu gën a bare muy takk suuf ñaari baat takk suuf ñii di takk dafa war a leer ñëpp yëngatuñu ko ñii ne bu amee am na lu tax ñii ne arab na ñii dañ ko sib ñii ni suñ ko defee xool nañ seen bopp yàlla mën na leen ci loolu parce que li tax ñu di ko ma tax waaye lépp rek. laata loolu demoon nañu ci mbedd mi wax as waxtaan ak askanu Sénégal ñii ni dagan ñii ne nañ ko ñii ne araam ne araam na ñii ne ci dugal ñii ne ci dugal loolu lépp nag su leen bëggee xam na lañ ca askan bi wax ñu dem ci benn waxtaan ah, takk suuf mooy takk jabar te doo ko wax nit ñi waaw ah sama xam-xam de bariwul mais pour man en fait takk euh, siwal bi baax na ci parce que day tax ki takk Eh, yena tentation yi mu mën ci muccu parce que dañ koy jappé borom jabar ki ñu takki tamit day tax yu bari mu muccu parce que dañ nan jabaru jàmbur la donc siwol bi pour man xawma ndax ci charge yi la bokk wala déet sama xam-xam agul fofu mais ci xel ñu tukess rek pour man si c'est à ne pas faire bo taggee jabar no ko mëna yëgal ni bo démé bo yow boy tak bugulo nit ñi yëk ko c'est parce que y'a y'a quelque chose qui qui est un peu louche donc du coup pour man <laughs> boy tagg jabar da war nga ko mëna yaatal ba mu ñep yëg ko moy waral xey nit ñi def ay xewat ñi def ay affaire donc takku suuf pour man c'est c'est à ne pas faire déjà tour bi rek dafa xaw a quoi takku suuf comme si dans takku kaw dafa am lool mom nga takku kaw mu soko deg donc mu tak rek mom jaadu na ma damay tak wa damay tak takku suuf rek boko degge sa dig veut xawna xawna neexul dégg si namp quoi ci sama xam-xam bu gàtt ah. ndax nit ki lo xam ne dund soko ko laaje la mu cee xam du bari ndax jigéen bu toogee dem ba majeur moroomu nawleem góor ñëw di ko seet dafa war a jël ay responsabilité mi yow mi gàddu sa tànk ba ñëw di seet si jigéen ngeen dema dema dem ba war a sëy bu ngeen demee ba nëbbonte di ci am te nëbbonte bi nëbbu leen génn lu may nit yi ndax yàlla xam na ngeen di nëbbu nit ñi kooku amul sens kon yow miy jigéen waxuma sax ku góor yow miy jigéen yaa war a xam ne kii di ñëw ci yaw yow respecté tew la parce que bu la respecté woon noonu mu nar a dundeeg yow du ko dundeeg yow bu fekkee ne nag alalu àddina wala koom-koom wala ay teraanga moo tax nga dugg ci jaay nga sa honneur te jaru ko jaay nga ko ndax boo liggéey bu ci doom juddoon judduwul ci lu lu lu lew ndax non seulement doo am certificat de mariage sëy kenn du ko reconnaître day mel ni tey jii rek nga àndoon ak sa waaye ngeen nekk nekk ba am doom ñu doom di gudd wut ci yoon man noonu laa gisee takku suuf takku suuf daal ni ma ko mën a gisee ni ma ko mën a jàppe mooy ñaari doomu aadama yu ànd di mooy yàlla yàlla nu ci yàlla mu sax man nag na ma ump musuma ko dund tey defe naa li des sama dund du ma ko dund waaw ndax daal nit daal lu muy def daal war na ci jël ay responsabilité ba mu mat sëkk man boo ñëwee di ma di ma seet sax di ma bëgg boo demee bay nëbbatoo ko laaxatu dama lay dàq parce que damay xam ne yow kiiwuloo ma lay dàq ci biti ah kii doxaan si dëbbu xanaa bu takkee day lu muy def man waxante dëgg ni day jëlee responsabilité ah soxna si ñu laaj xaw na kii de mais nañ ci wax suñu opinion rek liñ ci xam man de toogoon naa ay mag di toog di déglu seeni waxtaan comme ñun ay gone la day toog di déglu waxtaanu mag rek ma dégg ñu naan takku suuf baax na ci ay conditions nag waaw peut-être ñoom ñoo xam ci conditions yi ñu ko teg. te bi ma taxawee laaj leen ne lu tax ngeen nangu ne xam nga takku suuf lu dagan la ñu ne ma parce que am na sëy yoo xam ne bëgguñu mu siw am na sëy yoo xam ne peut-être problème dina si lalu xam na am ñeneen ñoo xam ne duñu comprendre comme ñun Sénégal lañ nekk parfois ay affaire de ethnie day daw xam nga ay affaire de ethnie ñii naan ay joola ñii naan ay. bambara ñenn saa yi nga dégg ñi naa ay géwël parfois gars yi seen bëgg dina leen pousser ba benn instant ñoom dañuy préférer takku suuf boobu noonu bu bañ problème wala bañ ay débat yoo xam ne eh, mën na jaxase bopp bien du genre man je vois que ne si côté boobu noonu takku suuf ne na si baax. en tout cas takku suuf képp ku koy def tu n'es pas courageux. faut avoir le courage de ses idées. Surtout pour les hommes. Nid Koubar, baax buy seet nawleem da koy dans les normes bu fekkee takku pas dans les normes ku jigéen ka amul fulla ku góor ko it amul fou. Euh, d'abord ci finis ñu ngir bi ñu takku suuf normalul ndax takk dafay am ay seede takk day am ay seede takk bu amul ay seede c'est nul et non avenu donc man yaakaar naa ne takku suuf nit dañ koy wax mais ku jigéen ki nangu ñu takk ko takku suuf amul fulla ku góor ki it amul fulla man daal loolu laa ci xam parce que jigéen bu toogee jàpp njàmburam gis ku ko bëgg mën na ko wan ay mbokkam ay mbokkam may ko ko bu ko ko ay mbokkam man nangulee may mu dem ci imam bi bu fekkee majeur na te mas naa sëy mu dem ci imam bi imam bi maye ko waaye takku takk takk suuf man xaw ma ko parce que daal takk bu amul ay seede du takk takk bu wér ñaare nag gaañ dinañ koy def ngir bëgg a mooy yàlla rek may ak yàlla nit ba mu yàgg rek mën a too ko bàyyi man man la bàyyi nga takk ko takk suuf waaye daal man je trouve que c' inélégant pour l'homme ah takk suuf de yàlla nañ ci yàlla musa musa ci mbool mu julli nit ñaa ngi koy def nag mais amul sens parce que góor bu la bëgg nga bëgg ko da ngeen war a wu seen famille xool euh, digënté bi mu neex leen ngeen sey sey ba neex ngeen am ci ay doomu barké mais takk suuf moom wax dëgg yàlla man ba ci diggaluma ko kenn té duma féké fuñ koy défé dara jaral mako ko am am sens ni ku la bëgg kay lu muy laqatu wa laqatu dé ku la bëgg ko dañ koy siiwal sey dañ koy siiwal sey dañ koy siiwal mais takk suuf baaxul góor gu la bëgg di la bëgg ne dama lay takk suuf nit moom loo ragal da lay gaañ la mu ragal bay takk suuf yow danga ko war a ragal ba bañ parce que ëllëg a tax ndax say doom mën na cee soso bu ëllëgee looy wax sa doom dafa ñaaw rafetul góor bu koy def jógul pour def lu baax kuy def lu baax ci kaw la koy yóbbu mais du ko bàyyi ci suuf. waaw bi de si nañu yéen bi ñu dégloon benn bi pare. xam nga mbedd mooy askan bi askan bi ñuy dox ci mbedd mi ci couche bi lañ te ku ne am na sa part loo am xalaat ci biir wax boobu ak suuf bi ñii ne nañu dégg naa ko ci ne par exemple na dégg naa ku ko def ku ne muy góor ba jigéen ba gëmm sa bopp wóolu gis naa ko koo koo xam ne aussi ne na par suñ ko def nga dem bu tudd sax ci waroo xeet euh,

nit ki bu dee bay takk war a assumer ses responsabilités assumer ses responsabilités mooy yëppoon jëgaloo ko am na ci ñoo xam ne bëggal seen jabar bëggal seen jabar moo tax ba ñuy takk ñu def ko ñu dugal monogamie monogame ñeent nee nañu moomuñu ko parce que yàlla daf la ñu mën nañu am ba ñeent mais nag bu fekkee par exemple dalal sa xelu jabar moo taxoon nga def euh, benn. dem ba ci biir xam parce que mënatoo ko attan parce yàlla tax ma ñeent rek na lu tax ko mais boo demoon benn laa bëggoon dem ba léegi sa yaram mayetu la parce que ci benn am na ko ma waxtaanee sànq mënuma ñeent ko kii sama coro jëkkër la que loolu ñett ñi sama sama wujju lañu mooy lu daggal jëkkër la te parce que koo ci gis tey les quatre-vingt pour cent yoo xam ne dañuy boo xoolee ba ci biir ci mbedd bi doxal. te loolu mënoon na nekk ci kaw seen jabar comprendre leen ñu dund par exemple seen polygame tout temps gérant par exemple seen àddina ak ak seen jabar parce que ñu bari ñu takk feebar nekk hôpital la ci biir hôpital bi da yokk feebar feebar ko tëdd te lépp moo ko teg boppam yaa

ndax ndaw si war na lool wala ndax ndaw si amul kenn ku mu déggal moo amul jot a avancé moom yooyu bu ñu ko seetoon tey day tax bala ñu def sëy bi discuter waxtaan ci te dama gis ne gars yi aussi tax suñu lañ koy yàkkamte rek mais buñ ànd jubloon jaral bi waxtaan day yàgg rek mën nañu wàcc mais nag comme ne moo dama ko sonn moo koy wax sànq aussi nee na ma par exemple bu fekkee loolu am na ñu waxtaan ci ba d'accord fekk waa ji tax si ñëw mën a

parce que mbëggeel bu seet def loolu la dara nga bañ nga bëgg da nga koy def donc soo ko ci seetoon tey nii ñu koy def tey dama gis ku nekkoon seen place ku daan dal la sa xel toll ko sax nga def ko parce que maîtrise de soi ak capacité discernement ak degré d'entendement lañ tollaloo de sorte que li ma mën a métti tey mën na bañ a métti jaxu li ma mën a métti mën na bañ a métti keneen donc ce qui que chaque fois bu la la amee rek buñ ko sutee ci par exemple kii lan moo tax mu def ni nañ jéem a ko lan moo war a mu def ko.

sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñi ñu war a seetaan yëpp ak ñi ñuy déglu di la sant yoo Ablaye di la gërëm ci liggéey bi ngay def ndax daa ngi gindi yaa ngi yeete yaa ngi indi waxtaan boo xam ne bi yaakaar nañ ne dina am solo waaw li nga wax tey euh, takk suuf <laughs> man saa yu ko déggee ngeen baal ma daf may reeloo parce que <clears throat> dañu wax ne diine yi suñu borom wàcce yëpp def ci daganal takk ndax Euh, moom moo ñu organiser suñu suñu àdduna suñu dundin waaw euh, muy ci chrétiens yi muy ci juif yi muy ci ñun jullit yi daf ñu organiser suñu société maanaam naka la ñuy takkante ay jabar naka la ñuy amante ay doom naka la ñuy eh, yore suñu njaboot alors bi ñu li ñun en tant que jullit nag mooy phénomène bi xew Sénégal peut-être xewul feneen wala nga xam ne yëguma ko mais Sénégal moom alhamdulilah euh, mooy takk suuf takk suuf daf may jaaxal man su ma ko déggee ndax suñu euh, xoolee ci euh, alxuraan saar boo xam ne suñu borom daf ñu ko jagleel muy an nisa dafa ne takk leen benn ñaar ñett ba ñeent waaye ci kaw ngeen ragal suñu borom ci kaw ngeen mën a yemale bu ngeen yaakaaree ni mënu leen yemale yem leen ci benn dama koy gàttal rek waaw donc yemale bi mooy ñàkk lor ñeneen ñi su fekkee da am ñeenti jabar ñoom ñëpp bu ci lor kenn su fekkee ne da am kenn <coughs> te yaakaar ne boo àndee keneen doo leen mën a yemale yemal ci benn donc kooku euh, du ñun suñu boroom moo ñu ko moo ñu ko wax moo ñu joon kon yor wi ñuy jaar ci ci alxuraan al bon dafa am aussi euh, takk jabar ay charte charte yi mooy bi ci jëkk bi ñu xam ne dañ ko war a laajte ndax kee ñuy bëgg a takk amul ku ci dugal alalam déjà donc kooku ci yi euh, ñu war a laajte la bu donc base bi li ma bëgg a wax rek ci commencement yi mooy takk fala bu demu siiw comme dafa am laajte yu ñu ciy laajte yoo xam ne dafay am tontu bala ñu koy takk mooy ndax amul ku ci dugal alalam déjà xam nga kooku kon laaj na tontu bu siiw lu dëgg ndax ki ñuy takk mos na sëy wala mosul sëy kooku aussi day laaj tontu ndax ci gàttal ki ñuy takk jànq la wala du jànq maanaam gis na kañ la mujjee gis mbaaxam ak yooyu loolu dañuy bañ tak sey bo xamne bi da fay am lu ci xajam pour ne pas dire que da fay haram donc li nga xamne suñu borom mo ñu ko organiser ñun te ñu nekk ci julit mu ne mu def ci saaru alquran lem mu won ñu fa ñuy jaar tak suuf bi da may xawa jaaxal motax mané day melni kon lu ñuy neub waaw lañuy neub nak lorange mën na ci am ndax mën nga am sa aawo mu am yu mu mankalé parce que dara motul nga dem takk suuf ñaareel dafa def loo dafa def loo xam ne li sa aawa yëgu ko donc day am day am euh, yemale dafay xaw a manqué dafa xaw a tumuranke te loolu euh, dëppoowul ak li suñu borom euh, wax ci alxuraanul karim donc bon mënuma mënuma mënuma man personnellement mënuma mënuma disons faral li ñuy wax takk suuf parce que julit la Amna astour lama tuut la ma ci ci sama diine te fof fof rek lay dess donc li ñuy wax takku souf phénomène la bo xamné bi bu bu feeñee parce que lu deug du yag bo takké souf itam yag yag dana feñ ndax suñu sénégal dafa dëpp bindo bindo boo xam bi yalla na yalla bal ndax warna ko waxé nonu nit ñi dañoo yakamti netali waaw bu takké souf itam ñaar wala ñett ñuko yegg té du ñak ko ci yakamti dem waxee ji ko fu may siiwee te bu boobaa dafa am lu mu yàq te li mu yàq moom alhamdulilah bu ñu yeboo ñu moytu ko waaw te euh, euh, takk suuf daal li ma ci mën a wax ci ci gàttal bala may jël sa temps xam naa ne am na yeneen ñoo war a dem seeti moo di ne sama gis gi dama ne teguwul fenn lu dul ak ragal te jullit nag li la suñu borom sant ci alxuraanam bi boo ko teggee teg fële def nga lu la neex waaw loo xam ne daganal nañ la ko soo ko defee mooy li war mooy li am yoon nga bëgg koo teggi teggi fële ah man de sama gis-gis nee naa daal boromam dafa mel ni teggi na alxuraan teggi na yoon waaw mooy li ma wax xam nga bu siiwee xëy na njaboot lu ndaw bi seen yaay dana dugg fit na jigéen moom alhamdulilah ñun ñëpp xam nañ leen waaw dana indi Euh, féewaloo njabootu kii ak njabootu kële du ñu xamante du ñu miinante du ñu demalante du ñu dikkalante xëy na ñaar ñi euh, euh, wujje seeni yaay ku nekk danga nga ci boo ci amul mot-mot da naan sama sama njaboot ñii lii sa njaboot sa doomu papa yi lee sa doomu papa mu indi dog mbokk te loolu aussi yàlla nañu si yàlla mosul ayaazu billah waaw suñu borom dafa ne nañu dajaloo. waaye bu ñu féewaloo te ñaar ñu bokk fala budda ñu suuxat ko ñu jëmbat ko ñu ñu dunde ko am jàmm surtout jàmm bi nga xam ne mooy mooy turu déjà suñu diine islaam mooy jàmm te njaboot bi suñu féewalee jàmm du fa am te loolu dañu ñaan suñu borom mu musal ñu ci am na fi dund nañ ko fii ku génn àddina euh, am ku présenté wu sax yor ay ay certificat de mariage am ak ay extrait de naissance doomam ne jabar la bon su fekkante ne firnde bi wër wér na ne jabar la jabar la dañ koy boole ci ndono bi lu dëgg loolu nag dana indi jafe-jafe itam parce que bu fekkante ne euh, euh, aawo bi nga xam ne dafa foog ne moom rek la ak njabootam ci ci ci manqué manqué doomu aadama mun na ne ah man ki xaw ma ko woon waaye ñàkk koo xam terewul kii soog a <laughs> am droit comme moom takk soof day dafa yàgg ci àddina ci benn fànn dina noppal ki ko def waaye bu fi jógee dina finnaal njabootam li waral loolu mooy ni léeg nga gis borom kër bu gis ben jigen bu mu sopp mu am ay njabootam moom ci boppam rus njabootam mbaa ñemewul jabaram mu dem gis soxna sa wax ak moom takk léegi-léegi mu xamal ko ne moom day am na jabar buggul perturber famem te buggul muy siiw ndax nangul nga ko ko ndaw si nangu léegi-léegi mu nëbbu ko ndaw si mais bu ci amee njaboot tey këram gu mag ay doomam yëguñ ko bu faatoo ñooñu feeñ dina indi fitna ci kër gi dina indi gàcc ci kër gi ba tax na bu fekkee ne dañoo nekk ci lislaam yàlla sunu borom subhaanahu wa taala lépp ñu dogal ñu féete ko muy ñu nekk xeetu sallallahu alayhi wa am nañu droit ba am juróomi jabar jubali juróomi jabar bi nag waxin la ñeenti jabar la julli di am ak taara loolu xam naa ne wax dëgg yàlla ku ñeenti jabar doyul taara boo ko jokkoo du la doy ba tax na je pense que takk suuf daal jaaduwul rafetul àndut ak dignité àndut ak personnalité parce que yàlla moo la may kon nga takk mais gis nga sa jabar du la rey ba ne yàllaa koy daganu sa jabar li mu mooy mer rek përti përti përti përti mais xaru tabaski sax boo ko rendee balaa moo sedd mu pëtër pëtëri mais yàgg-yàgg day sedd bi su ngeen gisee jigéen ju ngeen bëgg bu ko takk ci fàtte yàlla ak sunnas Muhammad mais demal nga takk soo ñëwee nga ut moment bi gën a favorable nga waxtaan ak si jaww na ko ah, man de ndogal la sama xarit diw di génn àddina doom yi taamu pour ma continuer téye leen kàddu wa ilaa gis naa kenn koo xam ne toll naa ak moom ci ay wax sama kàddu mun maytoo ma dellu gannaaw wa ilaa en tout cas trouver benn raison wala nga ut ñu ay nit ñu dem waxal ko ñu amul kenn nag benn jigéen bu bëgg wucc

xam ay exemple ay nit yu bax parce que nekkuñ ci jamono jamonoy dénoncé suñu déggee dinañ xam. est-ce que mënuñu ko méngale fuite de responsabilité. mais c'est de l'irresponsabilité du fuite de responsabilité irresponsable à partir du moment yow da nga nekk jullit sa diine may na nga mun am ñeenti jabar mais soo buggee te nga mën ko mais takka dee du weesu bàyyi dee la. d'accord de loolu la waaw li li tax donc man wax naa takkal naa nit jabar dem nañu ba bàyyam dee ca dëj ba ba ma ñëwee ne man de maay ñëw parce que jëkkëru diw sama xarit nit ñi di ma xoolante bi ma wooyee waaye si ne quoi man di jiitu naa maa ci dëj bi bi ma ñëwee diw laa fi ne naa ko jëkkër ju mu ne da ko wax mu ne ma musiba mu ci affaire bi ci man de siiwee waaye sëy ba toj waaye mais au moins siiw na te su ma waxoon ne nii nii nii nii ma ci wax daal damay ñëw rek te su ma koo fekkoon xëy na du ma wax loolu dama ko jiitu ca dëj ba maa ngi ñaan nit ñi daal pour sauvegarder intégrité seen famille seen dignité ay doom ak seen i dignité ay jabar ak ñàkk bañ leen ñàkk a nañu bañ a takk suuf. ku ci bëgg demal nga takk ci fàtt yalla ak sunna su julit amna am na droit takk jullit yàlla ubbil na ay yoon julit yalla may nako su ko ñenti doy sax mu yok ci dara way way way mais nak jëru ko gis nga jamono ji ñu nek fi ne ni mu xéré ndox oura ak ceeb ak dépasse ak escolarité xalé ni mu xéré képp ku ci dugg dugal ci lo man ak lo xam xol jigen ñi yalla mo leen defal ñu jek bu dee ko xoolee da koy tak di nga tak ci réew mi yëpp man de lii laa am tey ñaan nit ñi képp ko xam ki julit nga da ngay wuyo diine euh, islam mu dugg ci tak suuf waaw jërëjëf de soit dañu dégg ngeen consultant yi da non nañ seen xalaat vraiment refet na te na ñu aussi parce que man na naan rek la du rëy yokk nañu parce que jàng nañ ci biir lo xam Euh, am na ko ci dugg sax ci diine wax ni par exemple ci aaya wax am na ko ma ne par exemple yàlla la mu toggal dara li mu wax dara mën ko dindi dëgg la na siiw say ne siiw kon ku ko nëpp rek si gis-gis ma nga gis ne du yoon waaye nag dama gis ne aussi que euh, euh, bàkkaar lu ci jëf ci wax mais léegi di jëf kenn muy intention bi parce que dama gis xarabaat ka kii rek ñu mën a tuyaaba kii rek ñu mën a bàkkaar ka rey di

jubbanti ko ñu dee soit yoon kon ku ci seet ka nga war a seet waxtaan ak ka nga war a waxtaanal dem seet ngeen waxtaan profondément nga ko li yëg problème bi mën na la ko doxal da la ko doxal da la ko doxal parce que imam dafa nekkoon ne groupe si quartier bi imam dafa war a groupe si village bi donc moom kàddu bi dafa diis parce que gis nga Abraham lay dund donc Chara lay dund donc ce qui veut dire su fekkee loolu am na boo demee waxtaan ci rek amul benn problème parce que tey soo seetee tey.

ñi la war a yër lañu war a xamante ñoo ne bu fekkee xamante ñu ëllëg la mu mën a yàq mopp la muy defar nëbbal ay doom nëbb jabar nëbbatu di ba benn jour sa ñaar doom dajee ba bëggante nga ne tël gis sa doom dugg ci kër toog nga mu toog sa beneen doom nga tiit te loolu ay takk takk suuf lañ sa jabar day sa beneen jabar bi xamante wuñu dem ba joti ci mbedd wala leneen takkante yeneen affaire seen diggante mu ñëw surprendre sa kanam yëpp takk suuf la koy def mën a dellu si xel mbëggeel d'accord moo mën lépp mën ci ànd ak sago sago bi nag mooy lan chaque fois nekk lu dara bu ko daal jëmee ci dara xam ne jaxase na xelam na fexe ba approche yu ñu ko ëpp xel waxtaan ceeb ko ay professeur a ngi fii ay imaam a ngi fii ay sëriñ a fii ay ñi jàngal alxuraan ci kër koñ yaa ngi fii ñépp ngi fii kon ni mën a kaltu kon ne nañ gëstu ci xel yi mu yokk la parce koo seeti ku ne bu la waxee tey dara ci ci ci mbir rek dafa sax dootul ko wax boo dee borom xel parce que boo ko xasee jàpp rek c'est fini te cause bu ci mënti doon bu ne bu ci mënti doon bu ne buñ ko waxtaan teg ko exposé parce que seetee ba ci mbir ku ne am na koo rus te kenn xañtilee ba tax nga war a takk suuf boo demee waxtaan bi nag bu fekkee caacaale ci dugal nag loolu moom xaw ci dara bu fekkee caacaale ci dugal moom xaw ci dara mais fekkee dëgg-dëgg rek jabar nga bokk. nga bu ko takk suuf rek nga parce que pour satisfaire par exemple euh, ñàkk mën a mooy parce que li ma dëkk def parce que bëgguñu mooy yàlla donc suñu bëggee ñu mooy yàlla te donte condition yi may leen ko ñu nekk def takk suuf mais lépp rek coxtaan la soo demee ñu waxtaan war a war na war a tànn juridiquement am ay kilifa yu nekk ci justice bi nga xam soo waxtaan ñu wax la lan mooy lan lan mooy sa yoon وفكر مثلا كي ديني من غير ميو تاعنا لا بدا تورا وفكر تشكون من امي كي فيا خمني امي خمها ميو صوتو ديو تاعنا امي ميري خم بوتو ديو تاعنا لا يعني كون فريما ميغير خم لو بازا بو سيكا كملوب ميغير خم لو كرا ميان سان تاعي ميان كل تاسو كلام اكسل كولوتي ميغير خم لو تروب ñaana ko ni ngeen ñaanal ba ëlëk ko nek point 5 nek télévision bo xamné day partage sur adina bi ngeen toog seen biir kër seetaan seen doom di ko seetaan seen jabar di ko seetaan kon vraiment ñu leen di bu baax a baax di dem ba semaine prochaine ñu ci beneen teew